yow kañ euh, Régis daggal leen ma daggal leen ma euh, daggal leen ma kii ni kooku noonu internet boobu daggal leen ma ko. nañ ma nañ nañ nañ nañ ma dimbali rek dama dama dama nañ ma dimbali rek nañ ma dimbali rek. <laughs> ay ci bisimilah Idi. sa waa ji nama naa leen de. yow kañ nag ñoo bàyyi gis nañ sa taxawaay. déet bàyyiwuma la de bàyyiwuma leen de. ah yow kañ nag ñoo bàyyi gis nañ sa taxawaay waaye kañ dama laa gisul fen mbaa du woon dara. ah yow kañ gisuñu émission bi chaque daanaka ah, waxtu bi léegi dañuy dëkkale ah, léegi tàmbali jàpp midi. ah fan yi nag dama xawoon ñàkk jot nag liggéey bi ma xawoon tënk rek nag. ah loolu loolu kon loolu lu baax la lool lu baax la vraiment loolu la ñuy ñaan ñëpp. maa ngi maa ngi nuyu waa 2A TV yëpp. ñoo ngi lay fay bu baax. di ziare ñëpp di ziare suñu euh, internet yi. Mhm. di di wax rek ñu ngi leen di souhaiter suñu mbokki euh, chrétiens yi catholiques yi ñu ngi leen di souhaiter joyeux Noël. merci. Ah, donc bëgg ñëw rek tey tey euh, jotumaa déglu sax euh, point du jour bi quoi tey lu ñuy waxtaanee tey. <laughs> Idi na xoolal temps bi dafa mat xam nga tey dañ doon def genre bilan bilan général. ci li nga xamante ne moo jot am ci réew mi. maanaam comme que ñoo ngi jeexal at at euh, bi nga xam ne moom la ñu nekkee matoon na baaxoon na mhm. tamit ñu xayma li nga xam ne moo fi jot am ci wàllum événement lan ak lan lañ ci war a mën a ah. jàngee ngir at mu ñu jëm ah, li nga xamante ne baax na mhm. ñu téye ko gën ko yokk li nga xamante ne nag safaan la ñu daal di koy bàyyi ngir ñi nga xamante ñoo ñu jiite euh, daal gën cee gën cee bàyyi xel moo tax tey euh, ñu dalaloon fi suñu gan oustaz Mouhamed Siraji Anne mu tamit jàngalal ñu euh, jàngatal ñu moom itam ci wàllu bi nga xamante ni moom la gën a gën a taxawee mi wàllum diine itam ak taxawaay ci société bi nan lañu war a mën a jàngatee li ni mel ak itam lel leçon lañ ci war a mën a tirer donc tey loolu lañ doon waxtaane nekkoon bilan général général de l'année ah ñu ci xaar sa xalaat mais nañ ko gàttal nag naa la may 3 minutes waaw waaw waa baax na ba léegi rek ma tënk ko donc maa ngi nuyu suñu oustaz boobu donc suñu mbokkum arabijan la ñu ngi koy nuyu di ko euh, ziar di ko wax euh, ñu mel ni moom rek ñu ngi leen di euh, souhaité jasaagumu laaw xayram di nuy suñu xalifa général Seydina Ousmane Sonko mu seet la mu yàlla amiin ñu ngi koy nuyu bu baax di nuyu suñu mbokk internet waaw donc ñu ngi ñëw rek ci kii bi ndax année deux mille vingt deux bi moom dafa nekk année boo xamante ne nii li ci li ci nekk ci lu baax bëriwul bu dee am na ci lu ndaw a ndaw a ndaw li ci des lépp lépp lépp lépp lépp lépp yu bon la ndax liñ ci rey. ah lépp taxawal euh, oustaz oustaz Oscar. Oscar waaw waaw donc yow da nga koy natt ci wàllum politique wala ci ci ci ci ci taxawaay askan wi yëpp la. si ta maanaam buñ nee buñ nee buñ nee Sénégal. sénégalais yi ñoom seen ay activité sax feeñal ndax activité état bi moo ci ëpp. ndax li euh, li waral li waral euh, lépp nekk lu bon mooy. bu fekkonte ne nii euh, deux mille vingt et moo deux mille vingt et baaxul neexul deux mille huit deux mille dix neuf deux mille vingt baaxul neexul waaye deux mille vingt deux bi da koo gën a yees ndax deux mille deux bi si nga deux mille vingt deux dégg ñu ne ñaari ñaar ñoo xamante ne képp ku réer ñoom ñoo lay seet muy ci armée ak gendarmerie ñoom ñoo réer ba mujjee ñàkk seen bakkan mhm. loolu rek loolu rek tënk na lépp loolu kenn mu soo gis ci histoire Sénégal Mhm. kenn mësu koo gis ci histoire Sénégal histoire Sénégal kenn mësu ko tee gis ñoo xamante ne ñoo war a seet ñii réer ñoom ñoo wujjee réer ba ñàkk ci seen bakkan te ba léegi xat dammul saxat kenn saxatul kenn waxul enquête bi fu mujj te amul enquête mhm. beneen bu ci topp mooy si la njëg di gën a seere beneen bi ci topp si lekk sénégalais yëpp nekk ci amul benn sénégalais boo xamante ne yaa ngi xëy suba ba ngoon te sa fit dina rësit ci dara mhm. ndax kenn ku ci kenn ku xëy yaa ngi ci course ndax mën ngaa xëy sa kër gonto prison kenn ku ci nekk man naa nekk ndax da ngay taxaw reetaan reetaan nii reetaan neexul état rek ñu jàppale tëj la si kaso bi ba pare na la mandat dépôt mandat dépôt gën a yomb mbuusum ndox te loolu noonu ci réew moo xamante ne réewum jullit la te jullit ak moroomam innamal mu'minuuna ixwa loolu loolu yonte euh, yonte yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax mhm. ba pare na al mu'min lil mu'min kal bunyaana war a jàppante comme ni brique di jàppante mhm. jullit boobu mooy yéene moroomam jullitam ñu dóor ko si kaso bi jullit boobu mooy taxaw di di di wax loo xam ne du dëgg benn bis topp beneen bis topp mooy koo xamante ne ni kilifa la te moom kilifa lañ ko naan xoole muy xaadim sàmba taxaw ne dem naa ci xalifa général yeeg ñëpp ñaanal nañ la ànd nañ ci li nga bëgg waxal xat dama nangam nangam te kooku noonu ku ko dégg xam ne li mu wax du dëgg taxaw wax ba pare di wax ne ba ne réew mi kenn du ko jox bàyyi jàmbur koy dàmpal kooku ngay waal kooku noonu bàyyi jàmbur la yow ku taxawoon wax la wax loolu sa waajur góor dana neex du la neex waaye tamit wax dëgg yàlla li eh, li Moustapha Diop wax eh, ma doon ko seetaan sànq suba rek ndax la Yankuba Diatara waxoon ne Ousmane Sonko dañ ko war a xaarafal Abbas Fall taxaw assemblée ne na Yankuba jël naa sa place jox ko place doomu kon ça veut dire que Yankuba Diatara ku taxawoon ne bàyyi Yankuba Diatara dañ ko war a loolu wax dëgg yàlla lu ñaaw la donc nañu bàyyi kàddu yoo xamante ne bu nit bu ñu la joxee kàddu am ñu lay déglu boo taxawee si télé wala nga taxaw ñëpp di la seetaan da ngay joxe référence ndax ba yàlla di la sàkk neewul Macky moo yor sa moo yor sa sa lekk bu la bàyyee ak mu jàppal lépp da ngay dund tamit mais la la bay dundee ba saxul sikkam bu gëmee yàlla mën na caa jàpp ba far nañu bàyyi yëpp jëf ju ñaaw ji te Sénégal nañu taxawaat xoolaat Macky Sall discours bi liñ ciy xaar ginnaaw concert euh, casserole bi nga xam ne war nañ koo def liñ ciy xaar mooy ñu ngi taxaw xaar mu apaiser woote waat ñëpp nekk président de tout le Sénégal te bañ a nekk président waa waa coalition bokk bokk tëddee Adji Sarr maanaam na nekk koo xamante ne nii day yilif Sénégalais yëpp taxaw wax message bu responsable ñëpp di ko déglu mu jël Sénégal yëpp boolewaat leen bàyyi jëf ju ñaaw jeg toppante mu ñaaw lépp ñu bàyyi ko te mu mhm. at jël Sénégal yëpp uuf la uuf leen loolu la ñuy xaar ci moom njiitum réew loolu lañ ciy xaar loolu la ñuy xaar ci amirul mu'minin ndax bu fekkente da nga ne amirul mu'minin jiite jullit yëpp dangay ngay taxaw taxawaay jiite ñëpp donc ñu ngi leen di gërëm di leen sant di déggul ci euh, kii bu guddi ñu ngi leen jaajëfal yéen ñëpp merci merci oustaz benn instant yaa ngi yaa ngi reetaan de non kooku nag suñu suñu suñu mbokk suñu xarit bu baax la mais moom nag dafa amee taxawaay bi nga xamante ne moom c'est personnel à lui moo tax it yenn yenn kàddoom yi daanaka ñun euh, duñ ci duñ ci commenté waaye itam moom daanaka wax na ci tolluwaay bi nga xamante ne moom moom la amee moom la gisee ci ci ci réew mi bon ñun nag duñ ci xuus na ndax oustaz suñ sa ñun gën cee xuus waaye daanaka luñ ñu cëraloon ci ci ci waxtu daanaka mat na daanaka sax jéggi nañ jéggi jéggi nañ temps bi euh, li ci des rek mooy xanaa xanaa xanaa bàyyi la nga tàggatoo ak euh, nuyonte ñi nga xam ne ñoo ñu doon seetaan